yàlla ñaari yoon am na loo bu dalé suñu kaw dinañ tal leneen lu dul ay open press wala leneen li nak dafa munta ñak li tax munta ñak moy faaw ñu jaalé ñi nga xamantene ni xam nga ñom ñoo ñak seen njabot di ko jale président de la république di ko ñepp diko di ko jale monde entier di wax ne tay li am nekul lo xamantene lu ñu gënal la waye lu borom bi dogal jamm nu ci dara Sokh suma adversaire la comme yeneen adversaire yi làmb moo ñu boole te dañuy bëre incha allah la 14 yàggatul doole nag du lu ñuy wax rek doole lu ñuy jëf la te yaakaar naa ne am benn volume bi rek taxul nga am doole quoi waaw ñi ngi xaar la 14 daal incha allah supporters yi li ma leen di comme confiance ñoom gis nañ ko mooy wàllu entraînement yi. tey bu fekkonte ne si wax kase lay jëw laay def maanaam ñoom du ñu am confiance mais dañoo gis coono yi ma daj dañoo gis li ma liggéey parce que combat bi dafa ma jaral lu bari combat bi daf ma jaral lu baree bari bari baree ma jaral ma dëxañu liggéey parce que dafa am ñoo xamante ne dañoo nekk suma ginnaaw suma jugee ñu jug kon du ma def lu dul rayante góorgóorlu waxuma sax la 14 mais li nekk suma kanam si làmb ma rayante si parce que su ma jugee dañuy jug loolu kese la ñun ay doomu géejawaay lañu ku xam géejawaay xam ne géejawaay yàgg naa duma Pikine làmb nag moo baaxee woon nii day am yoo xamante ne nii li ndongoloo di wax ndaanaan bu daanoo foog coow li bari ki daan mooy ndaanaan mooy Balla Gaye 2 mais li si des mooy sama diggante ak sooxu prolongation bi la ñu wax yàlla nga si yàlla yóbbu jàmm man góor du ma jaay doole suma àdduna li ma wax loolu dara du ko dindi bi ma nekkee xale ba ni ma toll nii góor musuma jaay doole góor musuma jaay fit te sooxu amul doole bu ma jaay li may wax daal mooy insha allahu rabbi la 14 yàlla may ñu ndam lu sedd guy te insha allahu rabbi dañ koy am bu neexee yàlla sooxu li muy wax si làmmiñam la yem déggoo ma du ko jëfee te incha allahu rabbi maay xeex maay bëre maay duma maay daan incha allah. luur jaaxaluma mbapat moo mosaa dem poids lourd laay bindu comprendre nga amul benn poids lourd bu ma jaaxal soxu poids lourd yi ma bëreel ñoo ko ëpp doole foofu laaj Pythagore daf koo jàpp duma ko daan ko jàpp magam duma ko daan ko. bi mu daanee sooq si man la ñëw maa ko freiné. dëgg la laay la. laay Pythagore foog nga la war ah, a fonkal waaw kon sooq dama moromam si leer benn journée moo ñu boole rek te incha allahu rabi léegi mu jeex bu neexee yàlla. c' est normal ma ànd confiance parce que li may wuti ku koy wuti boo amul confiance nga bañ ko wuti moo ko gën. ndax boo duggee si dara te dama woo si fit dama woo si jom jarul nga si dugg ndax bëri jàmbaar moo koy def ak jom comprendre nga li ñu war daal mooy xam nga la 14 ñu ñëw jàpp waa ji duma ko daan ko loolu kase la amul leneen salari jiin bismillahi ma dee ci door maam góor gi njaay sëtub maram jiin bàyyi ndey ak sa maa yàgg ci coow ndaara yàgg na maa jiin ba ñu ma dalee tuuti laa booba su ma dalee damay waaye léegi nu ma dalit damay nay bari te nay